fadaayil ye sëriñ fàdduli ramoo jaam fàllu aw buso amul keem ku ko ràmboo si yoonu lislaam fàllu aw buso ca xar baax ya fi seex bàmba daa xare baax fàllu aw buso la seex fàddulu mbàkke xaraate ay baax